ñu ngi fii ci marché bu Pikine Icotaf fi nga xamante ne foofu la ñu fekk Baye Khali Thiam nekk président directeur général bu bijouterie Touba Darou Karim mu nekk entreprise bi nga xamante ne dañ ko jox turu kenn ci bijoutier yu mag yi nekkoon fii ci Pikine te it nekk way jur ci moom Baye Khali naka noone mi ngi yor ñaari entreprise yi nga xamante ne ci la ñuy defar ay bijoux tey yéen a nga ci entreprise bi ñuy wax bijouterie Touba Daaru Karim nga xamante ne si suñu bàyyi ñu ngi ko tuddee sëñ Modou Fati Xëri Mbàkke mu nekk bijoutier jàngal ñu yor ñu ba ñu màgg ñu tam ñoom atelier bijouterie tuddee ko bijouterie Touba Daaru Karim am nañ beneen bu nekk caaro yi mooy deux mais bii mooy un bi nekk Pikine parce que fii la sosoo quoi ci loolee naka la bàyyi xaali càmm daal di taxawal entreprise yii le te it fan la jaar ba yegg si fii. waaw métier bi bon ku ne xam na ne tëgg dawru mbaar la ñuy wax diplôme na ko tontoo du dañoo juddu nekk ci benn askan bu ñuy wax askanu ñeeño suñu papa nekkoon bijoutier ba léegi yan na ko yàlla yàggal mu wér lool ak mag ñi fi nekkoon sama maam nekk bijoutier ma donn ko. ñun bis dañ ko donn si suñu deret la nekk maanaam lu suñu maam sos la suñu bàyyi nekk ci ñun ñu ñëw nekk si nekkul métier boo xam te si dañ koo for wala ñu ko wàll yaane suñu métier la parce que askan wi ngeen doon bàkkantalee da ngay dégg tëgg dawul mbaar diplôme la ko tontoo ça veut dire da ngay dem ci mbaar mi jàng métier wala nga dem école bi jàng école mais faa ngam am lenn loo def ñu nag ci dañ préféré dem def bijouterie bi ñu jàngee ba toll ci benn niveau bi. ñu arrêté suñu étude ñëw ci mbaar mi jàppale paa bi mu joxoon xam te ne si sam pap moo ko jàngal muy pap Thiam yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana mu formé ñu tey ba ñu mën gérer di entreprise bii di bijouterie Touba gannaaw ba mu defee ay formation yu bëri ci wàllum bijouterie xaali daal di décidé ngir rek mën a dugg ci wàllum entrepreneuriat waaye it dimbale ndaw ñi ci wàllum formation bijouterie parce que li war a mooy sa métier ngay doon mbër sa njariñ feeñ xam nga ñun bon dañoo juddu nekk ci réew bi ñuy wax Sénégal Sénégal nag boo fi nekkee rek nekk ndaw nangoo góorgóoru am ay kilifa rek yàlla mën na la dimbali. xëy na ñun tey mënoon noo yem rek ci liñ nekk mais yemuñu sax ci li ñu nekk en tant que président bijouterie Touba Darou Karim PDG. mais teer tamit ñun ñu ngi jiit ay kuréel yoo xam te ci artisanat la nekk nga xamante ne si yemuñu sax ñun ci suñu mbaar yi. parce que bu njëkk ba suñu papa yi ci suñu mbaar yi lañ nekkoon buñ liggéey wàcc dem ci kër ga. mais ñun tey dañoo nekk ci mbaar yi di liggéey ba pare xam jafe-jafe yi nga xam te ne si moo nekk ci suñu secteur ñu bokk ci dirigeants yi diriger secteur bi. ba yàlla suturaal ñu tey ci lu baree bari tey ñu ngi ko ñu ngi ko téye ci ay ndombal tànk secteur artisanat. na ñun tamit ñu bokk ci kuréel jiite ko boo xamante ne si tey mi ngi jóg pour suqali suñu métier ñu taxaw ku nekk président bi. am projet bu ñu tegoon muy projet de formation et de financement des bijoutiers du Sénégal kon ñun yemuñu rek ci atelier bi ñu nekk mais dañoo bëgg tamit jàppale ñeneen ñi nga xamante ne si seen loxo yeggul foofu seen euh, amaana seen xam-xam egg na fa sax mais yàlla mooy cërale nit ku nekk li la yàlla cërale. Mm-hmm. dèjà ñun ay formateur lañ fi ñu nekk am na xale yoom jox nañu ko pour ñu jàngal leen mais teewul tamit am na ñu fi nekk di fi liggéey ñoom danañ fiy jël ay gérant di géraat bi bu ñu fi nekkul nekk ci une activité. donc la ma xoon ca tàmbali ba rek sa métier ngay doon mbër sa njariñ feeñ tey euh, ndaw ñëpp bu ñu taxawee gëm na réew mi ñun dëkk ci dëkk bi tekk ci dëkk bi rek yàlla mën na la jàppale ci lu bari. ñun tey bi ñu xamee ne tey xëy na waruñu war nañoo mën a tàggat ndaw ñi pour jàppale leen ci wàllum xëy dañoo ibbi benn projet bi ñu créé suqali suñu métier dañoo ibbi benn projet muy projet de formation. et de financement des bijoutiers du Sénégal yàlla dogal ñoom ay partenaires yu waa 3FPT ñu ngi leen di nuyu ak waa DER bi ñu defee suñu projet boobu dugal ko ñu validé ñu ko ba tey jii formé nañ ay ndaw fii Dakar formé ay ndaw tuuba Saint-Louis Mbacké jurbel te teewul ndaw ñu formé ba noppi am nañ opérateur yu ñu àndal mi waa Indagraph fexe nañ ba may leen képp ku ñu formé dinañ fexe ba may la outillage yoom di nga ko mën a liggéey sàttalee ba pare defal la projet de financement pour DRFG mi fi nekk état bu Sénégal moo ko fi teg pour ñu financer la. man maa ngi ñëw fii euh, si au niveau de la bijouterie Touba Darou Karim en boobu ba léegi nag maa ngi si gis euh, yokku yokku yokkute yokkute bu baax parce que man man mi nga gis ni am naa diplôme bac baccalauréat mais euh, après après samay samay étude dama toog bëggoon am emploi affaire bi xaw a dëgër sama côté léegi ma ñëw waxtaan seeg président Baye Khady Thiam moom ah, mu intégré ma si e, mais depuis boobu ba léegi ça fait trois ans maa ngi maa di liggéey te gisuma si lu dul yokkute daal gis naa si avancement bu bëri daal boo xamante ne daal kaw na sama njott daal naka noone métier bijouterie mi ngi jànkoonteel ay jafe-jafe yi nga xamante ne daanaka ñoom liñ ci bëgg mooy ñu daal di ko saafara ñu xoolaat anam bi nga xamante ne moom la ñu war a def métier bii le waaye it ñu dimbale entreprise yi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu yi. nekk ci mbaar yi di liggéey ba pare xam jafe-jafe yi nga xamante ne si moo nekk ci suñu secteur ñu bokk ci dirigeant yi diriger secteur bi. ba yàlla suturaal ñu tey ci lu baree bari tey ñu ngi ko ñu ngi ko téye ci ay ndombal tànk secteur artisanat te lépp mu ngi dooree ci visiteurs bi ñu doon ak tamit xam rëq-rëq yi ci nekk ñu jogante ko ndax nit ku nekk ci fa ngay liggéeyee sax da nga xam ne am na jafe-jafe mais tey boo demee à base nga xam ne tey jii comme par exemple ñu am na or nga nekk bijoutier te gisoo comptoir am Sénégal yow nan nga war def pour comptoir am Sénégal yaakaar naa waru nekk sa mbaar rek toog di liggéey war nga mën nekk ci combat bi xeex ko pour ñi fi nekk tey ji xam ne kat bijoutier yi ñu ngi Sénégal ñi ngi tëgg or te amuñu comptoir buñ soxlaa or marché noir lañ koy jëndee. te boo jëndee ci marché noir bi ni nga nekkee atelier bi nii tey client mën naa dugg si léegi bind or bise or yi nga jaay ko benn mu dem suba keneen day ñëw jaay si la or nga jënd soo jëndee tey xëy suba ñu lekk la ko jaay rek ko sàcc jàpp la yóbbu prison tëj la. ci ndaw ñi formé na leen ci bijouterie ba pare may leen mais yamuñu si ñu ngi leen dugal programme yoo xam ne si pour ñu financer leen ku ci nekk nga mën a am loo mën a soqali ko mën a jëmale sa réew kanam mën a taxawal ay entreprise comme ñun ni ñu ko taxawalee. alors donc ci euh, euh, ci bijoux yi tey gis façon bijoux waaw ñun ñaari façon bijoux lañuy liggéey dañuy liggéey dañuy jaay. or ak argent la liggéey or ak ñuy jaay parce que ku xam na ne or muy première matière bi gën a riche ci àddina bi yàlla jagleel ko les bijoutiers ku amul or aussi tamit xaalis ngay liggéey tey ñun liñ gën a ñor mooy ñu càggataat tëgg yi ba pare jàppale tëgg yi ci mbaar yi. naka noone directeur bu entreprise Touba Darou Karim mu ngi limal. jafe-jafe yi nga xamante ne yooyu la ñuy jànkonteel ci secteur lee waaw tey jii euh, ñaar benn bi ci njëkk mooy bu dee argent bi tey fi or bi di génne xam nga yaa ngi dégg ñaar ni senegal génne na vingt quatre tonnes d'or imagine ñu ne dëkk bi génn nañ fi vingt quatre tonnes or te benn gramme desul ci tëgg yi loolu nañ ko seetaat moo tax ñu ngi ñu ngi remercier le nouveau président Diomaye di ko ñaanal yàlla mu def jàmm te ne ko na Diomaye Faye na ñëkk a concentré ci or bi ne ci réew mi. or bi ñuy jëlee ci réew mi ndax gis naa ni ñu bëri arrêté nañ ko parce que ñoom loolu dañ ko yàgg a xeexal vraiment moom président Ousmane Sonko pour li des si réew mi ñu koy bàyyi waa réew mi mais munoo comprendre ñu la Sénégal day génn or maanaam ñu produit ay tonnes comme ñu la vingt quatre tonnes d'or génn nañ ko si réew mi ci liñ xam ci liñ wax donc te benn gramme tey mënul des si réew mi fii tey ñun li gën a rey suñu suñu métier loolu la tey mason yi bu soxlaa ciment. day jubal ci kenkaayir yi ñu jaay leen ciment bu soxlaa tissu day dem jënd mais bijoutier tey bu soxlaa un gramme or amul fu mu koy jëndee. te bu ko jëndee ci marché noir bi ñu jàpp ko bu amee problème ñu ne dañ koo sàcc jaay la ko tëj la prison suñu mbokku tëgg yi bëri na leen tey ci prison yi dinañ jàpp te loolu lañ jàppee beneen bi mooy matière argent bi ngay wax. tey matier argent bi mooy fàttali ne fii gal bi di fi or bi di génnee foofu la gal di génnee dañuy jël bi manit laa ko mën a waxee. maletu gaal gaal ba fa nekk dañuy jël may ko waa Suisse Suisse jël ko filtré ko génn argent bi defar ko actuellement li ma wax yéen gaal dafa manqué kilo bi mi ngi doon jar trois cent quarante mille maintenant mi ngi dem ci six cent mille francs kilo argent mi ngi dem ci six cent mil francs brut bi ñu tëggagul te Sénégal lay génnee de jox ko waa Suisse Suisse defaraat ko def ko ay gaal grain indiwaat ko ci réew mi jaar ko euh, Turquie ñu ñu koy jaayaat. gal boobu lañ mën a am xëy na moom lañ mën a am am nañ benn association bu fi nekk muy association nationale tëgg table ñun fexe nañ ba créer suñu comptoir d'argent di jaay gal mais actuellement nii amuñu fu mën a jëndee or amu fi gal nag moom buñ ko soxlaa mën nga jënd mais actuellement dafa manqué. amul ci marché bi mooy waral tëgg yoo dem tey dañuy toog di ñaxtu naan gal bi anamu parce que moom la ñuy liggéey. waa jafe-jafe yi bëri na bëri na bu ma ci mën a cité benn mooy ñàkk or mooy tëgg bu tëgg bu njëkkaan tëgg day toog ci mbaaram client fekk ko fa jox la or wala xaalis ne la sama doom day sëy tëggal ma ay lam nga tëgg lam bi rafet or wala xaalis soob ko jox ko client yi mu dem jox ko ay doomam mais valeur yooyu dañ ko perte léegi parce que léegi da ngay gis Sénégal. or bi cher na fi actuellement ni gramme or mi ngi jar quarante et quelques ci loo xamante ni ci vingt cinq mille vingt trois mille trente parce que loolu moo gën a indi jafe-jafe yi tey jii ki nga xamante ne si moo importé kasa la xam jàngul tëgg amul métier te buy jaay importation ñu ne ko or bi yëg na moom lu mu mën a commercer rek lay moom bu jëndee dix mille dana fexe ba jaay ko onze mille mais ngam nga xamante ne dafa am métier am jàng ko ba mu mën ko toog ci mbaaram te gisul lu mu liggéey gisul matière première. gisul client gisul dara mais kooku tey bu bu bu faytee yaa ko faytal. loolu nag moo taxoon ba bàyyi xaali yi daal di lancer appel autorité yu yees yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci gouvernement bu Sénégal. dañuy wàññeekuwaat di jël ay bisu pakatu di ko indi ci réew mi ñooñ di ko jaay waa réew mi di leen lor yemul foofu ñu jël suñu matière bi nga mooy gal jël ko jox ko waa Suisse may leen ko. si di ko produit ay milliards di ko jaay ci àdduna bi di ñu ko jaayaat ñun. ñu actuellement dafa manqué kon loolu tey ñu ngi koy lancé ministre des mines pour mu jàpp lañu si loolu te ñoom yaakaar naa dinañ ko saafara parce que ñoom loolu yàgg nañ ko yàgg nañu koo xeexal. mais boobu temps opposant lañu woon yàlla dimbal nañ nag ba actuellement ñu ngi ci pouvoir bi kon loolu am na solo. ci appel bi nga xamante ne moom la lancé autorité yi ñu ngi ciy gis ci xar kanamam solo si nga xamante ne moom la jox métier bii le waaye it anam bi nga xamante ne moom la ñu war a renforcer secteur bijouterie ngir rek mën a xeex bépp importation bu wut ak yoon waaye it ñu jaarale ko ci anam bu rafet ngir artisan yi nekk fii ci Sénégal mën a amal seeni liggéey nu mu waree. or bi cher na fi actuellement ni gramme or ngi jar quarante et ci loo xamante ni ci vingt cinq mille vingt trois mille trente mille parce que loolu moo gën indi jafe-jafe yi. tey jii ki nga xamante ne si moo importé sa la xam jàngul tëgg amul métier tey buy jaay importation ñu ne ko or bu yéeg na moom lu mu mën a commercer rek lay wut moom bu jëndee dix mille dana fexe ba jaay ko onze mille mais ngam nga ne dafa am métier jàng ko ba mu mën ko toog ci mbaaram te gisul lu mu liggéey gisul matière première gisul client gisul dara mais kooku tey bu bu bu faytee yow yaa ko faytal kon jàpp naa ne jafe-jafe bi ci njëkk mooy ñu fexe matière première am ci tëgg yi disponible muy or comptoir ba pare wàññi importation bi ñu ci réew mi di mën di liggéey di jaay waa réew mi ndax ñun foire yi ñuy dem ñun dañuy dem ay foire foire yi dem tey jii li ci ëpp ay bijoux local la ñuy jaay parce que nit ñi local lañ bëgg jëndkat yi dëgg local lañ lay laaj même étranger yi tubaab yi ñuy wax nii ñuy tëgg importe bi bu ñëwee fii local la ñuy jënd parce que ñoo xam nañ li ñuy defar baaxul léegi nag yow nan ngay nekkee ci réew mi yow war a dimbali sa waa réew. li réew mi defar doo ko bëgg mais li waa bitim defar loolu ngay loolu loolu ngay bëgg yaa ngi rey yaa ngi rey sam réew